waaw loolu comme ni nga ko waxee lu ci ëpp sëriñ si bokk nañu ci. bu xaaba yi. waaw bu xaaba yi ba tey ñu waxee ko noonu. <laughs> Euh, bokk nañu ci euh, même reportage bi sax maa ngi koy déglu. Mhm. Euh, damay xaw a leeral tuuti fenn. xam-xam bu ñuul dafa dafa am ñaari façon. bi nga xam ne moom la ñuy wax fitis maanaam nga xam ne lépp looy utiliser rek da nga utiliser direct. Mm. soit que da ngay utiliser lu dee maanaam lu medd soit ngay utiliser loo xam ne dafa xaraama lekk ñett yooyu. ay xaja ki mbaama ki affaire yooyu. nga xam ne dafa xaraama lekk ñett yooyu euh, dafa bokk moom la ñuy wax wàllu fitis moom la ñuy lijjanti wàllu fitis léegi dafa am beneen xam-xam bu ñuul boo xam ne moom la ñuy wax. Euh, moom la ñuy moom la suñu suñu suñu suñu mag ñi gënoon a xam. mooy mm. wàllu sunguf reen xeet yooyu. boobu nag daanaka du du xaraam ndax mm-hmm. daanaka ci lan doon faj mm-hmm. te plante ko na xam ne ne garab boo fi mën a lekk wala nga kii ko ci plante la la jógee mm-hmm. bon waaye bi nga xam ne nag mooy wàllu fitis bi nga xam ne damay wax ne dañ ko fii dañ ko jéggaani ñun amuñu woon boo ñun daaw daaw suñu mag ñi xaw ñu woon loolu même suñu buur yi yi fi nekkoon buur yi nga xam ne ñoo fi njëkkoon bu njëkk bu daan utiliser yenn xam-xam yi dañ daan euh, sacrifier ci euh, maanaam mu ko euh, sorcière bi moo def leen daan wax ni dañu war a sacrifier benn jabaru jaam wala dañu war a sacrifier benn ci sa ñi ngay àndal kenn ci jabaram. wala mu rey nit daal waaw mu rey pour mën a gañ a yooyu. waaye bokkul woon ci comme ñun yi nga xam ne moom la ñu gis léegi. dof gi nag comme ni nga ko waxee lu ci ëpp damay wax ne ci sëriñ si hmm. ci boxaaba yi hmm. nit ñi Euh, bëgg nañ lu yomb te bëgg nañ daraja nanguwuñu jaamu yàlla. Mhm. bëgg nañ alal ñu liggéey. Mhm. te ñaar yooyu dafay waral nit ki bu dugg ci yenn guuta yi. yow nit mus naa sant pour liggéey nit mu def wala mu dee. waaw du jeex du jeex am naa ci ay kaa yu dul jeex am hmm. xam ne dama ciy am nit dañ lay liggéey loo loolu. am naa ci ay kaa man mas naa am na ku ma doon liggéeyloo génn na àdduna sax jigéen la woon jëkkëram dafa doon euh, doxaan hmm. ki mu doon doxaan daf ko bëggoon takk hmm. mu def pexe yépp amul benn pexe mu ñëwoon proposé ma ma liggéeyal ko jëkkëram mu dee parce que buñ ko takkee bu ca ko amee doom dafa doon xalaat alal hmm. mais proposition yi ma joxoon euh, bi muy ñëw cinq millions la may illa indaale teg ko ak benn oto bu mu bu mu indaale woon jamono jooju la huit huit jamono yi wax ay fu huit huit boobu lay door a génn ne ma bu demee ba nga xam ne euh, dee na. Mm-hmm. ba nga xam ne ko li ñu waxante woon def nga ko. ma mm-hmm. jox la benn kër. Mm-hmm. mais bi ma koy yedd di waxtaan ak moom ni ko suma ma sañoon nga changé ak yooyu. dama daf ma daf ma jànni ne ma. Euh, yow dafa mel ne bëggoo tekki. ndax lii ma lay sant su ma ko def loo su ma ko soo ma ko deful itam dinaa dem feneen ñu defal ma ko te du te li ma la fay sax du ma leen ko fay. bañu ma ci ba génn réew mi. kon nga xam ni waaye ci ginnaaw gi dégg naa moom si jëmm wàcc na liggéey ndax xamoon naa jëkkëram borom këram mm-hmm. Mm-hmm. fexewoon naa ba gisante ak moom waxtaanoon ci ak moom jox ko ay ay ay pexe ba yàlla musal na ko ca ba soxna sax dafa mujj gi wàcc liggéey mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu dañ ci dañ ci am yàggul dara am na ku ñu doon liggéeyloo itam ci ci ci ci yàq biir parce que xale yi jigéen ñi sànq maa ngi degg ngeen di wax ni waaw si parce que ñu ci ëpp fi mu ne nii li ñuy liggéeyu ñaari mbir la seen far ak yàq biir waaw xale jigéen yi ci bare bare bare. Eh, yéen ci xam-xam bu ñuul da ngeen ci yàq biir. waaw xam-xam bu ñuul nit ñi dañ ci yàq biir. Hmm. am na si dañ ci hmm. yàq biir. Hmm. loolu am na. sëñ Baara yow. Mhm. ma laaj la yow da ngay liggéey xam-xam bu ñuul. non du man du ma liggéey zone. doo ko liggéey du ma liggéey zone mais euh, mais jàng su ma nee dafay diis. waaw mais. li ci li ci nit ñi di yor di ci di télé télé ci rajo yeeg télé yi. Mm-hmm. Euh, jaakaar naa lu ci bari dépassé naa ko wax dëgg yàlla. Mm. yor naa ci lu ko lu ko lu. naat dañ ci dañ ciy liggéey xam-xam bu ñuul. waaw deretu naat dañ ciy liggéey wërsëg dañ ciy liggéey noob. Ah. dañ ci liggéey wërsëg dañ ciy liggéey noob. ñaar mm-hmm. mm-hmm. loolu dañ ciy liggéey zulmaan yi effectivement. waaw léegi léegi euh, yow lu tax nga jàng xam-xam bu ñuul bi. waaw li tax ma jàng zulmaan yu parce que bi may jógee bi ma jógee daara euh, yàlla dafa def bi ma nekkee daara dama daan fréquenté ay nit yoo xam ne ay boromi xam-xam lañu ñi nga xam ne ñoom laa bakkol daara xam nañ xam nañ xam xamoon nañ ci loolu am na ñoo ne sax dañ naan ma sax nekk sëriñ bettuñu ndax da nga ko da nga ko mës a bëgg waaye damay jàpp ne nattu la ndax sama waajur bu góor waajuram moo daan moo daan ñaan ñu koy wax moom euh, Mamadou Maram Kebe ñu gënoon ko ci xam ji baay Serigne Kebe nekkoon fii Medina di 25 angle corniche yal na yàlla woyofal suuf ci kawam te jéggal ko yokk leeram euh, bi ma nekkee daara ja dama daan fréquenté ay ñoo xam ne dañ doon liggéey ñi ñoo xam ci ëpp sax zulmaan yi lañ doon def parce que mënuñu woon sax bind xamuñu sax looy alquran waaye ci la ma njëkk jeglu jëkk lu gëstu ci zulmaan yi ci wàllu tan la hmm. waaw dama daan ànd ak ku ñuy wax si soxo nekkoon Daara Moxti am naa yàlla na mi ngi mi ngi dund ba léegi su ma ko bi ma ko mujjee dégg euh, moom yàlla lim ko defaloon dafa amoon benn yat yat boobu daf ko jondante ci affaire maam histoire boobu dafay xaw a gudd mais bu ma di dem di jàpp tan daf daan ñëw ba jib leen sànni le sànni yat bi bu sànnee yat bi bu tan yi commencé lekk rek yat bi day nekk jaan bu ñëwee duñ màtt benn tan mais day ñëw laxasu ci tànku ñaari tan bi nga xam ne du mën a naaw bu ko defee mu ñëw jàpp ko bu am daf ñu daan wutloo itam ay nenu ton tan yi bu daan nen ci kaw guy yi dañ daan yéeg mu mu am lu ñu jox ñu sol ko wala ñu wekkoo ko wala mu jox ñu benn yat ñu tee ko bu ñu yéegee am na yu ñu fa daan fekk maa ngi fàttaliku sama premier jour bi ma njëkkee yéeg mu mu yéegloo ma ci guy ñu ut nenu tan ak euh, boo yëkkatee nenu tan yi dafa am poudre buy nekk ci suuf dafa aay loolu ci seytaane loolu mm. tan buy bëf dafa am lu muy génn ci ci ci ci suufam. Mm-hmm. loolu muy génn ci suufam bu boofee bu jooy demee mën na toog deux jours du boof mën na toog une semaine du boof loolu muy génn ci suufam moom mooy boof neen yi. loolu nag lu mel ni sunguf lay doon boo ko bokkee comme doomu taal lay doon. loolu nag dafa baax ci cuuraay ci wàllu seytaane bu ko defee ñun dañ daan dem maa ngi fàttaliku ko sama première dañu ñëw yéeg mu dafa ñëw na la diw yow yéen a yéen a yéeg ñu ñëw yéeg bi ñu yéegee ba ci kaw ñu fekk fa génn góor mu toog ci ci kaw nen mais lim la daan jox bu boo yegsee tan bi du du du bousé ak tan ni mu agressifé ak ni mu bëggee ay coojam ñu mu mu ñu man maay man ma yuuxu ne ko dafa am ko ma fi gis mu may wax ay baat ne ma waxal baat yooyu lu mu wax ma wax ko lu mu wax ma wax ko après mu ne góor gi ne mag euh, looy wut fii ma tontu ko ne ko nee na ma looy fii mu ne ma nee ko si soxo moom si soxo moom moo ma daal di yëkkati nen yi daal di tonni la fa nekkoon jox ma ko ma wàccaat mais loolu lu ma lu ma lu ma lu ma la ci bi may bi may gëstu. xam léegi nenu tan yooyu dañ ci liggéey dañ ci euh, def liggéey bu bon wala xam nga ñun suñu problème mooy euh, ni société bi tëddee nga xam ne euh, da ngay da ngay bokk ak nit baay da ngay bokk ak nit yaay ah <coughs> da ngay bokk ak nit fu ngeen di liggéey ah léegi liggéeyante boobu nga xam ne euh, mën nañ ne nit ñi ci xam-xam bu ñuul lañ koy defee lu ci ëpp parce que dañ ne moo gën gaaw wala moo gën a soxol waaw loolu boo dégg ma lay que da mm-hmm. da nga ma posé benn question mm-hmm. noo def ba gëstu ko mm-hmm. ci ma jógee foofu ci laa commencé di di di di fréquenté ay ay kilifa ñi ñooñu nag dañ daan am ay mission di dem ñii di dem Burkina ñii di dem Niger ñii di dem Guinée léegi nag ci ñooñu buñ daan dem dañ ma daan yóbbaale ci laa doon gëstu mais ci réew yi nga xam ne moom laa xam ne réew yi nga xam ne ñoo gën a dangereux hmm. ci wàllu fitis hmm. Burkina ak Niger la parce que li li li li ma gis lu gën a dangereux ci li ma jàng ci xam-xam ak beneen ak beneen est-ce que beneen du seen chef beneen kay chefu ñëpp waaw beneen musuma fa musuma fa dem non non beneen musuma fa dem mais hmm. mais mais Burkina ak Niger surtout Niger. Mm. moom la ma fa gis moom musiba naaru laahi la. Mm. parce que am na ci marché yoo xam ne sax dañ fay jaay ay cër. moom ah, loolu moom am na ci marché yoo xam ne sax. Mm-hmm. boo ci nga ci ci laay dem commencé di gëstu. Mm-hmm. Euh, ba ba ba gis ni. Mm-hmm. zulmaani yu lu lu am doole la te ñu ñi bëgg nañu ko ma commencé di ko gëstu mais bi ma ñibbisee. ci góor goo xam ne daf daan dafa nekkoon nag sama sama sama maam boobu. góor googu moom moom nag moo ñëw moo ñu moo moo ma ñëw bàyyi loo ma lu bari.